asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu fii Serigne Touba ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naa li nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñ boor may ko kàttan ak wér ba lépp mu àggale ko ñu ñëw fii di yékkati kàddu yu gàtt di kàddu yoo xam ne yaa rekk la cant ak ngërëm ak ñaax ak soññu ndax du mu taxa yàlla dafa def ci moom képp ku fi nekk Sëriñ Tuubaa suñu boroom dàq na ci yow adduna dàq na ci yow bakkan moo doon Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa moo doon Rasulullah kon wa maa a anil hawaa lépp lu mu wax rek lu yàlla digle lépp lu mu wax rek lu suñ borom santaane la ndax li sëriñ Touba waxoon rafaatale na ko képp ku ko fi toogal toogootu ci mujj njaarim bi ñenn ñi ñëwee du ko digal ne ko dañoo bëggoon nga doxale sa diggante ak tubaab yi diw ndax mën naa am ñoom danañ gën a mën a wax ak ñoom te kon jàmm dana gën a mën am si digg ak ñoom sëriñ bi ne leen loolu de duma ko def ndax sama digg ñoom kenn doyuma ci ñoom ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la mën nag mënisuma xupp mënisuma xëpp sëriñ Tuubaa nag loolu la ko suñu borom defal ko ko fi nekkal itam doon doon na na loolu kon nag dañuy sant yàlla bu baax. bi ñu Serigne Touba fàggulee ay kilifa yu mat yu mat lañ doon képp ku ko fi mas a nekk rek Serigne tubaa def na loolu ci ba yàlla def moom mii nekk fi di Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñu borom dëgëral ko te guddale aw fanam tamay ko kàttan ak muy jëmm joo xam ne nag bokkam yi mu bokkal Serigne Touba li muy wax naan lu mu doon rek ñoom laa ko gën a yéene moom itam yàlla def na loolu delluwaat ci moom. ñoom ñëpp yéene nañ ko jotaay bi ñoom ñëpp ko yéene ndam wa yoosiruuna ala anfusihim wala kaana bihim xasaasatun bu ak dundut teewoon ak faatu teew ñoom ñëpp mën ñu mën a joxe seeni bakkan ngir moomu nekk la nag lu ko yàlla defal la ma dindi ci seen rek di kilifa gu bu mag bu baax ku maandu wax ne lépp lu mu wax rek ñëpp xam ne ne waxiwu ko ci bakkan muy Serigne Cheikh Mbacke Serigne Saliou شيء بينو خلاف كسر مدمع وحنا ما الشيخ مهود منتخاري جتايم بي لما ينرور موي ويوم أسلم جبريل الأمين أتا بإشني من هو فوق الكل قهر معلما أن أن إسلام الفتى عمر بصرى لأهل السماء والكل يختار نيب ما سي نونغ بيرم لول نك ليكو كوم اي موي لي سيرين توبا واخ سي نحجو رك ومن سعاده الفتى حيث قصد الا يرده فؤاد زرست sëriñ bi dafa yéene ñëpp jàmm mandargam tex gi ko suñu borom defee nag moo tax benn xol du ko delloo moo tax tey biñ nekkee ci biir oto bi naamoom ak sëriñ Isaaxa rakam ñu jëm ci jullikaay ba damaa yéemu ci mbooloo mi xër gi am ci moom ak ni mu ko yëgatee moo wax sëriñ Isaaxa Cheikh Mahoudou Bachir ne ko li ma gën a yéem ci mbooloo mi de li muy bari bari boo koy seet ñépp ay ndaw lañ ay ñaar fukki jëm suuf wala lu ko lu ko lu ko weesu tuuti loolu nag kenn wane na ne mbirum Sëriñ Tuubaa lu adduna yi gën a doxee ci kanam la jëm ndax ndaw moom ak jigéen ñoo yor mustaqbal ma àgg ci ne ko li ma gën a yéem mooy jamono dafa àgg ci ñëpp bëgg Sëriñ Tuubaa doon seen kilifa rawatina ndaw ñi day na ne rus nañ sax kenn di doon seen kilifa ku du sëriñ loolu la ko suñu borom fayee kon nag liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii. kenn de cee doonul dara lépp Serigne Touba ko faggul boppam loo ci gisit ak nu mën a dem rek Serigne Touba ko faggul ndax li gën a jafe mooy xol yu nongu te lépp ñu nangu koy joxe ngir sëñ bi kenn ku ci ne la ngay denc sa la ngay jox sëñ bi gënal la ko loolu nag yaakaar naa ba ci histoire l'islam ba nag ni kenn mës ko am jur nit joxe jël sa alal bañ faa des sa dara Serigne Touba rek ku jëkk am te ba nga ni kenn amatu ko moo tax illa yaqaadillaahu maa lam yakuni boo koy firi fu ne danga ko fu mën a firi ndakaaru gi itam nafaali xayrillaahu fii ndakaaru kulla azan li jërahu makaaru fexe yi ñu ko fi doon fexeel mu taroon lool metti lool nga xam ne sëriñ bi fu ne jaaral nañ ko fa lu ne def na ko waaye fii rek lay wax ne bu ma ko fàttalikoo mu metti ci sama xol ba ma bëgg buur rañaan ngir dem jihaad def jihaad waye rasulullah sallallahu alayhi wasallam tere ko xamal ko ne yang ci jihad di gëna ma iza sakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa thubuta tarad ila al jihad bil armahi nafsi walakin zabba an al mahd kon serigne Mbàkke yu fay di jëw ni serigne bi ci Ndakaaru serigne baa ngi koy sant bu baax di ko gëreum cant ge ngërëm di nak moy taxawayam ndax lii mu fi indi tey mooy li ci gën tuuti ndax joxe na jëmmam joxe alalam joxe xalaatam joxe dooleem ba matul tudd dara ci boppam te loolu man mën naa mën naa koo seere kon sëriñ baa ngi koy sant cant goo am na fu mu tàmbalee waaye amatul fu waaye nag xam na ki muy jëfal ndax jëfal suñu moom jëfal sa bopp rek la waaye nag jàmbaar bu jëfee ba kenn mënu ko ca la muy def warees na ko kañ sant ko kon sëriñ bi nga koy sant di ko gërëm cant gépp na mu dolli ko ñaan ñaan leen mooy la mu ko seeral loolu ne ko li ngay wut am nga ko mooy ngërëm Sëriñ Tuubaa ngërëm Sëriñ Tuubaa loolu mu ko seeraloon nag ne na mi ngi ko ñaan ngërëm la sax ci moom dootu ko ci moom ba àgg ci ak njabootam ndax tey jii kat xam ngeen ne bis bii waa Ndakaar la ko sëriñ bi doon te mooy seen jëwriñ ngir rek am yërmaande ci ñoom ngir xam ne bëtu yërmaande bu leen xoole wala mu wàcc ci suuf si rek danañ am jàmm danañ am danañ am danañ am xéewal moo tax sëriñ bi ñëw kon nag bu ñëwee mu jëf lam lu rëy lim jëf ci ngan gi te ngan gi kat xam ngeen ne lañ def ci togg yi rek ëpp na juróom-ñaar fukki million te nee na sëriñ bi ay téeméer nag des nañu kon mbirum suñ tubaab moo deme noonu li nga xam ne taalib yi ko doon barkeeloo nag lépp dem na ca moom ci boppam nag moo ne la Sëñ Abdou Lahad daa wax ne taalibe bu ñuy jox a sëriñ bu ñuy jox addiya te doo joxe addiya daa mel ne ku yoroo waxandew gaalam ku fóot ay yéreem ba mu jekk rek mun la dencal la bu ñu demee ba àgg ci bisu waajtaay ku ne laajub yéreem nga jox ko doo am loo sol kon moo xam ne di jëwriñu nit ñi itam war ngaa génn ci sa ñaq bopp loo joxe. Mm-hmm. moo tax mooy tey day sant sëriñ bi yëkkati lu tolloog un milliard jox ko sëriñ Touba. addiya milliard nag sëriñ Touba dégg na ko ba tey waaye yaakaar naa sëriñ Touba rek ku ko mos a dégg. joxe ko ba noppi tari ko xeeb kon dañ koy ñaanal dërëm bu ci ne rek yàlla soppil ko ay tuyaab yu bari te suñ borom noonu lay faye man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha kon nag lii aw soññ la ci képp koo xam ne yàlla defal na la wërsëg nga xam ne wërsëg kat ku yàlla defal jox la xolom nga def ko ci baax war ngaa sant yàlla bu baax suñ borom nag xam na ne diisati ci nit ñi moo tax mu ne ولا يسألكم أموالكم يسألكمها فيوفيكم تبخلوا ويخرج أدخاركم خمنا نع على دفع تقت خلو برام ويسرين توانا نعم لوك نب لوك لب لوك نب جوانا صلور على جي سيا الله لوك يدفع المرة نيني جو حسن على الجن الجن اللي نجدين شو وخلنا نك على لدوان جاي دين خل بعفين كتابنا نحن نتفو على لم تابي أبخلو دكتور كنا بوين كسر نفينا كرسين توانا لوني جو حكمه لب دفع دلوا سيا الله kon nag sëriñ bi ko sant di ko gërëm di ko ñaanal mucc ak xéewal ak barke te lii mu jëf kat yàgg na koo jëf ndax man li ma xam mu def ko ci liggéey sëriñ Tuubaa bi ci jumaa ji wax ma nag xew-xew yi mën na ñeent ci wala mu ëpp ci lu ma wóor kon lii day lu feeñ rek waaye li ci def ëpp na loolu kon nag loolu sëriñ Tuubaa rek la ko yàlla defal waaye nag ak cant rek mm-hmm. maa ngi koy wax sëriñ Yuusu Jóob nii di jëwriñu daayira Hizbut Tarqiyyah léegi di ko ñaanal suñ borom dëgëral ko moom ndax dañuy waajal ab siyaara bu mag mën na ko Serigne Touba de ku ku kuy jug jëm ca kenn du la yërëm la ma waxoon ak Cheikh Ibrahima Fati ne ko bis mu woo leen bañ dikk fekk yeneen sëñ bi di sant dafa bari sëñ bi ne ko ab liggéey laati de ab liggéey laati ndax liggéey yi nu muy toftaloo rek moo ne ko mbàkke de li tax saa soo ma wàccee du ma nangoo wàcc mooy yaay ñu njëkk xëy ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ba na gën a wàcc ko koo ko xool ci sëriñ bi ñaan xam ne li muy def jom rek la ko defee ak positif ma ne ko li may yéem ci yéen yéen a ngi jóge ci koor gi li ngeen ci daj yéen a ngi ci këru xasida war a defaat ab siyaar bu mag boo xam ne dañuy jaayante sëriñ bi wëlbatu ko di waajal màggal Tuubaa te li jees ëpp ñetti weer loolu nag Sëriñ Tuubaa rek ko attan te taalibe Serigne Touba yi nag Serigne Touba leen ko faggul ndax ñoo dàq joxe ci nit ñi waaye ñoo ëpp wërsëg ñëpp kon nañ xam ne fàggu def Serigne kon nag la sëñ bi laxat waxoon rek ne luñ góor ci sëñ bi ndax luñ jëfu ci sëñ bi àdduna dana leen ko leb te àdduna lu mu la leb du la ko delloo kon loolu ñëpp ci war a jàng te xam ne addi yi nag pastéef rek ci am solo ndax ki mën a joxe milliard ak ki mën a joxe dërëm na ko sëriñ bi leer la woon ci gànnaar nett woon naa ko seen siyaare ba daaw ki dërëm te am pastéefu milliard mel na na ko joxe milliard waaye nag kon euh, dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ne nag taalibe yi moom li ñuy joxe soxlawuñu xam fu ñu koy def waaye nag lu ci tàbbi ci sëñ bi rek day tax muy gën a sotti ko maa ngi koy wax sëñ Yuusu léegi la sëñ bi waxoon sëñ ma Juuf jatti ne ko Cheikh Ibra de li mu wutee ñëpp mooy bu ma ko liggéeyloo am néeg mu liggéey ko ba néeg bi àgg ma kos almet taal ci wala ma ma di fa liggéey yonent bi di fa jàmm yàlla ñooyam ci moom loolu nag sëñ Tuubaa rek ko kon nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan dëkk bii di ndakaaru nga xam ne ku tedd kii wàcc na fi di borom jamono yàlla na fi suñu borom wàccee xéewal ndax sëriñ Mat Saxir mbay kat ma mas Cheikh Mamadou Fadil mas na koo seeti mu tari ay bayit yu am solo mu sadd ay bayit ne ko lillahi qawmun iza xallu bi manzilatin halla nada wa halat fil jawi anwar tastaaquhum kullu ardin yansiluuna biha ka annahum bi biqaahi l ardi amtaaru Cheikh Mamadou Fadil tontu ne ko إذا لقيتهم أو كنت زائرهم بيومنهم فارخك فارخك الدهر أو زاب نحوم سي أحمد سخير سي ما سخير بعي أقوان تبروهم دون نتو يالكم مغ نيت نيت لنا ما نمستا نيو تي نيارم كو خم دوكو فك شيخ فال مي نون تي جوماجي دوكو فك دا سياري سون شيخ محمود مصطفى باي ген ام بيتي dugg ci néeg ba caag mu génn mu ne picc mi de mi may tàggi diw doomi diw ak diw nañ indi suuf ma ñaar ko ñu dem tubb suuf indi ko mu ñaar ko naka mu génn rek ñu tàggi ko kooku nitu yàlla Cheikh Mamadou Fadil nag ñëpp xam nañ ne koo xam ne waxuma la loo ñaan waaye loo kafe sax suñu borom def ko kon nag ñu ngi sant ñëpp di ñaan nag ci daraje Serigne Touba ci wàcc gi fi Serigne bi wàcc xam ngeen ne dëkk bi jamono yi yëpp nit ñaa ngi jàmbat ñàkk sécurité te sécurité kenn ni ko suñ borom waxee ci alxuraan fu mu néewut kenn du tala jaamu yàlla falyabudu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf kon yàlla na fi suñu borom defaat barke ba dëkk bi newaat ci jàmm ndax jàmm ku ko amul dootal dara ba ca des ñi ngi masow sëriñ bi sax waroon na faa yónnee suñu bokki dëkk bee di tiwaawoon di mbokk julitam di mbokk deretam xew-xew bu dis ba fa wàcc nañaan xam ne loolu la mbass la mu rëy am nattu la nattu nag julita ko mom mbugal yéefara ko tax kon lolu nattu la waye serigne bi nee mi ngi yekete kàddu njaal diko ko ci ki nga xamne moy kilifa dëkk ba di serigne babakar simon sour al khalifatu al am di tarixati tijaani ak mboolem njabootu Cheikh El Hadj Malick si gépp ak mboolem ña fa dëkk ci dëkk ba bayut kenn mi ngi leen di jaale ñooñu nga xam ne ay mbokk lañ di ñaan ña fa ko te ñi ci ëpp di ndaw wala bu fekkee du lépp itam da ci ëpp ay ndaw lañ suñ boon def leen li ñuy wax asalafu salih dawalub yow ndax ne ñoom toggaguñ leen jëf ba bàkkaar wala waaye su yàlla suñ boon bool leen ci mina salafi salih Sëriñ Tuubaa rek lu ko suñu borom may rek may gi day continuer wa am si yun si nii bi yow beexat lu lu mujj rek day geccal la ko jëkkoon mas naa wax sëñ Masamba Diop Samb ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mbaa mu ne ko mbaa xam nga ne ak Dame Sane la Dame mooy dencukaay mu ne kon de ñu fas yéene doone lantinoor rek mu ne ko loolu képp koo xam ne def nga ci buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw danaa ko yëkkati na sa diw gaa ngi kon lii seen jëf ji ci lool rek la tàbbi Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen ne milliard bari na lool bi ku ko sëriñ Bakki yu yëkkatee jox ko ko mu tegaat ko ci sama loxo ne ma lii kat addee Serigne Touba nag addee Serigne Touba nag ci compte Serigne Touba rek lañ ko dugal ma ne kon daal koy jël dugal ko ci compte Serigne bi moo tax fi sensé ñu woo waa banque islamique bi nga xam ne fa la war a dugg ñu ngi toog di ko wàññi ak njabootu gi Serigne Bakki yu fa yebal ak doomam ak i jarbaatam ñu ñëw wàññi ko wersu ko ci compte Sëriñ moo xam ne addee Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaay loxoom yaay tànkam yaay laminam